coow li bari na te assemblée amati na liggéey pétrole gi it xam nga ne fan yëpp ñu ngi koy wax mbirum Aline Sall ñëw na nit ñi ñu ngi wax euh, à travers benn reportage boo xam ne BBC def na ko moom tam mu daal di jóge màkk ñëw setal boppam ñi féete ak moom tam di setal boppam yow honorable yëf yi noo ko gisee. waaw euh, man dégg naa mu ne moom dana porter plainte Aliou Sall mais est-ce que tey la waroon porter plainte man bokk naa ci groupe bu ñuy wax Petrotim Timis. xaw ma kañ laa fa bokkoon ak léegi ku mel ni journaliste investigateur bu ñuy wax baaba Aydara depuis boobu ba léegi mi ngi wax affaire Petrotim pour lan lañ lan war a xaar ba xaar ba tey ba BBC wax rek sénégalais yépp naaw pour pourtant Baba Aydara avait alerté depuis combien de temps tey ñu toog ba tey BBC wax ñëpp jóg ne Aliou Sall Aliou Sall Aliou Sall pour lan duñu gëm sunu doomu réew. investigation yi wóor la ci ay dara def man dama ko gëm moo tax ma adhéré ci di ci xap gis lu ñu musa wax ci affaire pétrole rek plaidoyer bu ma ci def assemblée nationale dafa am fu leer fu ma ko teg yàgg naa ci wax du tey bu ngeen xoolaatee sama yenn plaidoyer yi yàgg naa wax ci affaire pétrole parce que bu ma ciy dem di toog damay jël ci journaliste investigateurs yi jël ci ñi am xam-xam ci wàllu pétrole laaj leen waxtaan ak ñoom xam fi may teg sama plaidoyer jàpp naa ni affaire pétrole bii ñuy wax Sénégal fii la leen di jaar ci suufu bakkan ah lu leer ngay wax yaa ngi dégg léegi léegi ñu lay wax Petroguet lu ñu wax dañ ni ñun amuñu ci sax pour cent et ça c'est normal tu penses que dëkk bu toll ni Sénégal ñu ne la pétrole baa ngi bënn fii ci sunu suufu dëkk ñu jël pétrole bi jaay ko ñeneen ñun ñu toog hmm? maanaam nañuy waxante dëgg Sénégal nag mën nañoo yokk mais duñ sos. waaw sénégalais moom mën nañoo yokku nag waaye duñu sos am na daal lu ci am moom lii nii ñuy wax nii am na lu ci am. waaye gis tey président de la république après julli wax na ministère de la justice tamit neen na jullit bu mel ni Alioune Sall yaakaarul muy def yenn affaires yi ñi féete ak moom tamit sang nañ ko ba mu set. waa xam naa jullit bu mel ni Karim waa war a sàcc moom ndeysaan Karim amul bàjjen ci dëkk bi. ah yaay damaa yaakaar loolu laa yaakaar rek moom daal Alioune Sall daal moom warta jël. Karim moom amul bàjjan ci dëkk bi moom mën naa sàcc mën naa jël ci xaalisu réew mi mën nañ koo tëj ñetti at exilé ko mu dem Qatar waaw c'est ça le problème c'est ça le mal du Sénégal et puis ministre de la justice aussi qu'il se calme quoi